monsieur le commissaire les députés de Yéwi Askanvi ont recours au conseil constitutionnel Ce recours président Macky Sall ajandi loi bu la constitution député Benno Bokk Yakari député voté ça veut dire que nous sommes en campagne électorale te bu ñu waxee campagne électorale dem saafonteeg askan wi dem waxtaan ak askan wi dem wax leen lan moo tax ñu war a votel Jomaay président dem wan leen ngir ñu min ko bulletin de vote Jomaay euh, président ndaxte xam ngeen ne ñaar fukki bulletin la donc ci la ñu avancé waaw bi ñu avancé nag gis ngeen ni ñu waa HLM teeroo dafa mel ni waa HLM dafa mel ni askanu Sénégal Jomaay président rek lañ doon xaar dafa mel ni askan wi dañoo namm Jomaay président dégg ngeen fa sax ay yuxu ñun Sonko lañu and dafa melni tamit askanu Sénégal nam na bu baax baax kii di président Ousmane Sonko ay président Ousmane Sonko bés bu génnee dinañ fi gis loo xam kenn mësu ko gis ay président Ousmane Sonko bu génnee mbooloo mi nga xam ne président Macky Sall bëggul àddina bi gis ko ci ne ñooñu ñoo topp Diomaye président ñooñu ñoo topp président Ousmane Sonko ñooñu ñoo topp Pastef dina gis mbooloo boo xam ne kenn mësu ko gis sur la planète Terre donc mbokk yi waxtaan commerçants, ak euh, ak commerçant yi distribuer nañ suñu ay spécimen commerçant yi kontaan nañu dugg nañ suñu oto ñu bëggoon dem ci màkkaanu étudiant njàngaanu daara ju kawe yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo Kédougou foofu la ñu bëggoon dem ngir jale étudiant Kédougou ndaxte xam ngeen ne ci ñetti xalé yi président Macky Sall fat boom amna ci Modou Gueye nek feulé ci ginaaw ray amoon na ci euh, Landing Camara Chor waye itam amna ci Ali Alpha Tunkara Alpha Tunkara Bayeko ko Dindi Felo ko donc biñu joggé HLM dañu bëggon dem ci ñom fiñu dëkk étudiant kedugu ngir jaalé len li nga xamné ñun ñoko bok muy Alpha Tunkara waaye gis vous bi ñu ba egg lycée Kennedy fu muy ak euh, ñaari deux face ngay a dem nga place de la nation gis voyez taxaw suñu kanam taxaw ba si mu auto président Guirassy jàll mu bloqué ñu taxaw ba mu neex ñuy def auto ñuy dem ci auto dem euh, dem ci auto bu nekk di ku ci numéro plaque d'immatriculation le may ci dal leader yi nga fi nek président Macky Sall la lu dal s'en auto président Macky Sall la te xamuñu lan nous ñu don ben yi di plaque d'immatriculation di xol ku ci nek ñu ngi sol ay kagul ñen ci ñom ngi sol ay kagul waaw ko xamne yow fit plaque d'immatriculation donc nous mettons en garde le président Macky Sall lu dal leader lu dal auto yi moma te ñu nangu li nga xam mo dalon dam muy dawal otom ñu koy tiire di ay bal duñ ko nangu et nous prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale bi auto président Guirassy rombe ñu euh, euh, ñu bayyi auto Yassine Fall ak defe auto oto Marème Soara ñu bloqué wat ñu bayyi ñun suñu auto ñu jàll ñu bloqué wat li muy tekki moy sen taxaway mo nekkoon pour ñu yaa ngi di fàttaliku fi meeting akapes ñun ñep ak président Ousmane Sonko demone fa ñu jóge akapes ñu ñibi ci VDN bi tak der fess fees ci VDN ñuy dagg cortège bi benn par benn pour bañ manam auto yi andando donc dama bëgg askanu Sénégal xam li nga xamné mo xew et que lu ñu dal ñom la ci jamono campagne la ñu nekk conseil constitutionnel joxewul atté ci recours bi nga xamné député yéwi Askan Wi Ayib mu ngi fi sama ginaaw tonton Ayib fait conseil constitutionnel joxul décision bi joxul dogalam ñu ngi ci campagne électorale donc ñun coalition jomay président euh, li ñu waxon demb mom lañu jëfé tay dañ leen waxon ne dinañ wëyel campagne bi ba kérok conseil constitutionnel wax ndax askanu Sénégal mo am dëgg ci né élection par la force dégg ngeen commerçant yi ci HLM né nañ élection par la force né nañ élection day am né nañ kenn du randal élection c'est ça la profonde aspiration du peuple sénégalais Ce ko wax diversion la nous sax là, ci yéen ñu sommes may laaj ci là, tomb man nous sommes Sénégal Sénégal par la force kon bu nous nous est-ce Sénégal nous ne kenn du randal élection parce que li askan yu bëgg la te askan wi mooy ñun ñun ñooy askan wi ñun nee nañ élection par la force 25 février day am élection coup d'état bi duñ ko nangu duñu nangu dem 15 décembre 2024 donc lii moo nekkoon euh, li ma bëggoon wax di gërëm waa HLM yëpp di gërëm euh, mes commerçants HLM yi euh, di wax étudiant yi nga xam ne mooy les étudiants de Kédougou yoon yemul ci benn police moo ñu tere tey ñu ñëw foofu waaye coalition Diomaye président du coalition bu ñuy xoxatal du coalition bu ñuy tiital

ndaxte manifestation à sunu élection manifestation ñun président euh, manifestation démocrate citoyen sénégalais Sénégal warul am coup d'état Sénégal warul am putsch Sénégal warul président coup d'état constitutionnel coup d'état militaire donc euh, euh, pour des manifestation samedi à...

président Macky sàll dafa yebal ca kaso ba dafa yónni ay nit nit yooyu waxuñu président Ousmane Sonko ne président Macky sàll moo leen yebal ñu dugg ci kaso bi ne ko dañoo bëgg nga am liberté waaye nga génn Sénégal xaw ma ndax dégg ngeen ma dañoo bëgg dinañ la génne kaso waaye dangay génn Sénégal balaa ñuy gisanteeg moom ci biir kaso def nañ lu ñu mën. ci biir hôpital ci biir grève de la faim bi pour mu recevoir leen mu ne moo lànk ñu ne ko Ousmane Sonko dañoo bëgg nga génn kaso da ngay génn Sénégal nga génn kaso Ousmane Sonko ne leen feebaruma génnuma Sénégal ñu ne ko da ngay génn Sénégal dem faju ji waaw dinañ wax askanu Sénégal ne da ngaa feebar dañ la génnee Sénégal génnee la kaso pour nga dem faju ci mu ne leen man feebaruma lenn rek moo ma dal sama ñànkatang laa nam ma damaa gëj lekk te ku gëj a lekk boo ko xoolee di nga ko xàmmee mu ne leen génnuma Sénégal ma buggoon nag wax patriote yi wax askanu Sénégal fi ngeen jàpp ci Ousmane Sonko foofu la bu leen teggi seen loxo bu leen teggi seen tànk te Ousmane Sonko waruñoo gën a gore bu nekkoon keneen nangu na génn Sénégal mu ne man génnuma Sénégal bu dee condition bi pour génn te amul lu ma def mooy génn Sénégal génnuma kaso loolu nag am na ay weer pexe yooyu président Macky Sall nekkoon ngir génnee président Ousmane Sonko ca kaso ci pexe yooyu la nekk ba tey moo tax ngeen di dégg baat yu bëri dam bëgg bu baax ngeen dégg baat yu bëri ngeen di dégg moom mu ngi toog fu mu toog rek waxagul dara mënugul wax pexe yooyu ñu nekkoon pour génnee ko kaso génne walé ko Sénégal niñ ko défé won pour Kenen, président président Ousmane Sonko lank ba tëdd ci souf ci pexé yoyu lañu ñu wëy ba fan yi passé waxtu yi passé ngeen di dégg ay baat yu bari nan li am nak li am nak li am nak lolou nonu ngeen di wax bi mu commencé na te président Ousmane Sonko dafa lank dafa bañ président Ousmane Sonko c'est un homme de refus c'est un homme de principe président Ousmane Sonko du kuy daw gisuma lu muy daw du kuy ragal gisuma lu muy ragal donc motax ma bëgg yi ñu and ak dal ñu and ak ñu ak wax bu wax dina rek ngeen wara xamné kon bu kenn jaxlé bu kenn bu kenn waxu kenn bu kenn euh, post Facebook kenn bu kenn di wax radio ak télé di deru Ousmane Sonko askan wi dafa mobiliser wu ne maa lànk maa bañ duñu def coup d'état duñu randal élection lolu mo tital président Macky Sall ba bugg fi indi diversion ba nan xawma ay amnistie ay dialogue ay lenen c'est de la diversion ñun li nga xamné ci lañu wara focus moy ci lu wara focus moy élection day am 25 février président Macky Sall 2 février 2 mars 2 avril jéxal na ci bop réew mi bu génnewee Ousmane Sonko moko war bu génnewulee Ousmane Sonko génne ko moko war bu libérer les mille et quelques détenus politiques moko war bu bu leen génnewul moko war ndaxte da dalen jàpp ñoom ci lo xamné du deug du yoon ñun nañu focus élection présidentielle 25 février nañu focus ci 2 avril moy bëss bu muju ci président Macky Sall 3 avril nak du ko fi fekk beaucoup de fi que ñu dem déloger ko palais beaucoup de gens qui fi gouvernement d'union nationale de transition ordre du jour désobéissance la désobéissance civile continue la résistance continue contre le coup d'État du putschiste Macky Sall qui nous a annoncé qui nous a menacé qu'il préparait un coup d'État militaire et je le redis les gens sont allés voir le président Ousmane Sonko il y a plusieurs semaines de cela pour lui dire, président Ousmane Sonko, nous voulons vous sortir de prison et vous allez sortir en même temps par la même occasion du Sénégal et on dira à tout le peuple sénégalais que vous êtes malade. Le président Ousmane Sonko a refusé. Le président Ousmane Sonko a dit niet. Un général d'une armée qui s'appelle Peuple sénégalais ne s'enfuit pas quand son peuple souffre, quand son peuple se bat. Moi, Ousmane Sonko, général des patriotes, je ne m'enfuis pas en arrière askan président je ne suis pas malade pour prétendre face au peuple sénégalais que je suis sorti du Sénégal pour aller me soigner je ne mange pas de ce pain je ne baigne pas dans ces combines et je voudrais attirer l'attention de tous les patriotes. Ce sont ces stratagèmes-là, ces combines-là, que le président Macky Sall est en train de poursuivre. C'est pour ça que vous entendez tout le bruit qu'il y a aujourd'hui. En réalité, Macky Sall, Laper et Benno Bokyakar sont cernés de toutes parts par le peuple sénégalais et ils veulent se sortir de ce guépier. Président Macky Sall et APR et Benno Bokyakar sont des pyromanes qui voulait allumer un feu contre les patriotes et ce feu est en train de les brûler et ils viennent demander aux patriotes de les aider à éteindre ce feu. Mané, président Macky Sall dafa taal daay boo xam ne dafa Ousmane Sonko les patriotes yi lakk ñoom Moustapha Guirassy lakk ñoom Maïmouna Bousso lakk professeur Maritou Nyan, Niane lakk Aminata Touré Yacine Fall ak ñoom Sen. Lak mboolem aji bëgg askan aji bëgg réew. Soda Soda mais euh, madame Soda moom mooy présidente majeure <laughs> et donc daay dit qu'on l'a lakk moom mais qu'on ko lakk mom, président Macky Sall moom APR même mom Benno Bokk Yakar. léegi nag muy ñëw bëgg a ñëw ci Ousmane Sunko, ci ab ci Pastef ci jomay président ak ci patriote yi pour ñu fayal ko daay bi nga xam mom moko taal pour sànk ñu ñun ñëpp sànkaale askanu Sénégal li moy wax ji de. Nous président Ousmane Sonko li euh, wa HLM wax élection le 25 février 2024 le 2 avril 2024 jour pour le président Macky Sall donc ce sont les mêmes ce sont les mêmes combines que le président Macky Sall est en train de poursuivre c'est pour ça que vous entendez plein de choses.